salaamaaleykum suñu mbokk internet yu sans limite kontaan si ànd bi ngeen di ànd ak ñun dal leen jàmm ci euh, récap du jour bi xibaaru bëccëg gi benn mbir kase kot donc la ñuy waxtaanee di lu doy waar euh, diggante samedi beeg dimanche bi la samedi jàpp dimanche ci euh, suba di benn jeune bi nga xamante ni ñu ngi koy woowee Mbaye Wade di ab étudiant UVS xale bi dafa dem daal di pendre boppam ci ab garab fële ci école 3 ca Pikine ginnaaw bi gardien bi ñëwee daal di ci yem ci la woo ñi nga xamante ni ñooy police police jël ko daal ko yóbbu hôpital hôpital gis ni wala sax nag bi ñu defee autopsie bi dañu gis ni dafa xaru maanaam dafa pendre boppam alors nag euh, di euh, lu doy waar waajur yi wala sax waa Pikine jaaxle woon trop lan moo waral mu daal di rey boppam moom ndekete yow daal di nay bind ab lettre posté ko ci statut lettre bi nag di ci wax li nga xamante ni euh, moom moo tax mu daal di xalu bu ñu jàngatee lettre ba jëm leen ko tekkil daanaka ci wolof ndax nee na moom ci boppam dafay décider ngir yamale dundam fii man damay décider yamale sama dund fii ndax sama dund stable stablul benn yoon rawatina sama euh, suñu kër bi nga xamante ni fa nekk nekk nekk faak sama papa ndax sama pappa moom si boppam du référence sama papa bëgguma ko benn yoon ndax ni muy comporté ak ñun ni muy comporté ak famem en tout cas loolu la wax daanaka bu ñu ko tënkee ci euh, euh, ci xibaar que ni moom ci boppam dafa daal di am lu ko metti ci dundam waaye dafa mere bu baax a baax ki nga xamante ni mooy waajuram bu góor looloo tax mu daal di euh, ñàkk bakkanam wala sax looloo tax mu daal di dem ni dafay xaru jàpp leen di daal mi ngi noonu di lu doywaar waar nag famille ba nag kenn mënu leen a nax ndax am lu leen metti yaay ja kenn mënu koo nax tamit ndax am lu ko metti ndax sa doom bu dem ba toll si ñaar fukki at ak juróom nekk étudiant war dimbali ngay am espoir bu bëree si bëree si moom mu xëy xaru ndax papaam loolu ndax yaay ji dafay mere papa ji wala doom ji lay mere di euh, loo xamante ni kenn mënu cee at am ab tontu lu dul ndey ji en tout cas ñu ngi koy jaalee ci sama tur waa sans limite di ko jaale famille bi yëpp wéy leen di abonné seen bii di sans limite daara ju leen ci réew